leen siyaar tey nag ñu ngi fi nga xam ne nii moom moo di Grand Dakar buñ ko waxee nag liñ fi indi lenn la làmba ku fi woote waa Leewtoo production ñoo fi woote combat Tapha booy ñaa Niang face à face war a def fii mu war a nekk en direct ci TFM yaa ngi dégg yaakaar naa ne nag liñ fi jot a gis bu ngeen xoolee tali bi ni mu mel nii hmm, Balde gis nga talibi bi xam nga lii ay xeer la lii ay xeer la nga seen auto bi ne leen mu taxaw yaa ngi dégg ça veut dire que moo lay wan ne kon xeex bu méttee métti am na fi tojante toj ay oto jàmbur yàq ay affaire ci loo xam ne face à face la ñaari mbër yi ñoo ko war a def maanaam yow mi nga xam ne da nga ànd mbër pour man li nga war a dimbalee mbër mi mooy buñ ko fayee ay millions yu bari lañ leen fay ñu ñëw war a def seen face à face yow mi ànd ak mbër mi est-ce que yow sa xel dóorante ak saagante ak waxante lu ñaaw moo ci war a ne est-ce que noonu la war a doxe no warul doxe noonu tafaatin su bëréwul ak Boy ñaa du am xaalis Boy Niang su bëréwul ak tafaatin du am xaalis parce que ñoom ñooy mayante xaalis te promoteur bi di Pape Thialis Faye ay millions yu bëri la jël dugal ci ay nit jàppale ko pour combat bi mën a am mu am ay sponsor kon defe naa yéen ñi nga xam ne da ngeen di ñëw yor seen ay doj di sànni pour man daal képp koo xam ne bu ñu la waxee nga ne maa tey wala ñu wax la nga saaga wala nga jëli xeer di dóore pour man amoo argument mais nit ku am xelaat am xelam di naaj muy xalaat lu baax du saaga du dóore du wax maa tey waaye nag mbon moom am na ñoo xam ne ci la fa fas yéenee sax waaye ku mu nekk ci yow itam yal na la yàlla baaxal waaye lii daal moom boo bëggee dëgg-dëgg moom image bu ñaaw a ñaaw la. gis nga nit ñu ngay seen ñu génn taxaw ñëpp leen génne mooy lii parce que li dafa ñaawaa parce que ñoom ñu ngi tëddoon seen ay kër nekk seen jàmm di nelaw est-ce ngi dégg waruñu woon leen a mën a déranger waroon nañ ci mën a def face à face bi tafaatin ñibbi fo mu dëkk booy ñaa ñibbi te problème du am mais ça veut dire que mel ni tey réew mi daal léegi daal xale yi maanaam daal dañ fee bëgg a daal maanaam lu lu lu neex waaye def xam nga oto bi ki ko toj ki def lii moom leer na ko ne du ko jënd parce que bu jaroon xaalisam du ko def mais nag comme li may wax rek yenn soxor lay doon ki ñaanu xol parce que yii yëpp ci wàllum soxor lay bokk ak réewande te réewande moom maanaam nit defu ko ba ci résultat bu baax jamais au grand jamais mais jàpp oto jàmbur bu ñu gaare nii nga jël ay xeer dóor ci ndax lan ne da nga ànd ak mbër noonu la ñuy àndee ak mbër damaa réew fii ñëpp a réew ku tooñ ku tooñ parce que mbër dañ leen di fay voilà maa ngi lay ziar. ñu ngi lay sant tur la Alioune Samb li am fii nii noo ko gisee li am fii ni ñu ko gisee xam mooy lan manque d'organisation totale ndaxte on ne pas concevoir nga organiser ñaari ténor yu ponkal yu day nii jëlee leen seen gox yu nu nekk defoo ko fa nga ñëw ba Grand Dakar fii di ko fi def war nga ut mesure de sécurité bu doy ndaxte ni fi yàqal ay doomu Grand Dakar lan de seen yoon nekku si. ci quartier bi nga dëkk ci quartier bi laa dëkk. seen yoon nekku si li xew signature bi seen yoon nekku si kii organiser combat am la muy gën ci poosam la koy def kon bu organiser lu toll nii day indi mesure de sécurité bu doy ñun nag ñàkkuñu fayda waaw jël nañ fi ay moto jàmbur agréé nañ fi ay gel kon bee ngay gis ne. réception moo fa amoon am na ñun ci jot a gaan di leen porte plainte nag dañuy porte plainte dañuy porte plainte ku ngeen di porte plainte yéen ñu organiser lii ñu ko organiser dañuy porte plainte waaw ñu ko organiser dañuy porte plainte waaw dañ koy porte plainte mais fii cosaan xam nga cosaan ku ne xam na ne Youssou Ndour moo ko moom di fi tëgg ay soirée maanaam kon fu ñuy organiser ay affaire la kon defe naa tamit bu fekkente ne TFM day liggéey ak promoteur bi te yaakaar naa kon war nañ fi mën a def direct def fi organiser fi lamb tafatin booy ñaa face à face am fi te jafe-jafe waru fi am parce que yaakaar naa Youssou Ndour yàgg na tëgg fii ay soiréem te problème mu su am wala mais xam nga boo déggee ñu ne lamb dañ na facteur de développement la mais facteur de développement day jëmale réew kanam mais facteur de développement du yàq kon lii xew nii tey mën nañ ko organise sax ci kër mën na ne ndax ci lan ñu jël seen matukaay wóor mais boo ko organisé lu mel ni fii te jëloo say matukaay yu wóor ñi nga xam ne ñoo ñëw ñoo ñëw fii tey dëkkuñu fi ñun ñii ñoo ci ñoo ci fi ñëw di af ñi fi ñëw di agressé di toj oto jaam dëkkuñu fi ah. te ñun loolu duñ ko seetaan dinañ porter plainte nag bu ñu réagir ñun dinañ ko lijjanti à notre manière waaw au nom de Dieu ndax suñuy sœur nañu gaañ ah, daa am ñu fi gaañ ñu fi gaañ xam nga ñu gaañ fii fii ñu ñu gaañ ñu ngi fii am ñoo xam ne ñu ngi yóbbu na leen hôpital am ñoo xam yóbbu na l'hôpital am na benn maire boo xam fii lay jaayee gerte boobu bi la ñu xaar am na ñaari booy yoo xam nangu nañ seen scooter ñaari nit yoo xam nangu nañ seen scooter c'est pas normal c'est pas du tout normal te loolu dañ koy xeex tey te day dañ voilà loolu la ñu bëggoon ngeen dégg ko voilà ok merci beaucoup ok. Jibi Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Babacar. face a fas Tapha Tine Boy Niang li ma lay njëkk a laaj balaa ñu dugg si biir saal bi di cosaan gis nañ fi histoire bu méttee méttee méttee méttee loolu noo ko gisee en tant que promoteur buy dundal làmb. non mbër ñoo war a bàyyi lool boo ko xam ne xoolee ne ñiy xeex làmb dafa bari nga xam ne làmb daanaka dañ naa amul bàjjen ci nit ñi danoo war di moytu lu bari parce que ñi sànni xeer mbër mi rek la ñu yàqal defaral la ñu mbër yi topp yi ànd ak mbër yi mbër yi rek la yàqal defaral la ñu mbër waaye xam nga ne signature bu mel nii nga dikk fi ak ni la fi làmb toll nit ñi sowe làmb nga bëgg yàq signature bi loolu ñaaw na trop rafetlu ma ko de rafetlu ma ko waaye. mu mel ni tamit yow en tant que promoteur Jibson production mu ngi waaj le treize. waa dimanche bii di ñëw incha allah ci stade Iba Mar Diop Ville de Serre ak Jimbu Yoff drapeau bi di drapeau Lahat Ndiir ah, drapeau bi ci topp di drapeau Pamoudou doomi Bekaay bi ci topp di Babacar bu Karim huit heures Kër sama waaja waaw huit heures d'honneur ba di Baye Ndiaye su ma taxawee nag damay sant sama sponsor leader bu demee ni Sador waaw nga xam ne moom. <laughs> ok daa mel ni nga bokk maa ngi moom moom daa mel ni Sador lañ. ak Alburax Owens waaw ñoom ñooy sama sponsor leader maa ngi leen di sant di leen ñaanal luñ man ren ñu man ko déwén di sant Baye di sant Assis. sa digganteeg Aziz Ndiaye. sama digganteeg Aziz Baye mee moo ko dox. bàyyi mee la xaritoon te bàyyi boo bëggee Aziz boo bëggee bàyyi Aziz da lay bëgg baay mee mooy sama xarit bàyyi yóbbu ma teg ma ci loxo Aziz ba tey ji lu ma soxla ci Aziz du ma dem ci Aziz Aziz mën naa ko bañ a gis ci bàyyi rek laa yem mësuma soxla dara dem ci Aziz ci bàyyi rek laa yem mu géré lépp waay kon daal yow yaa ak ñoom daal diggante bu yàgg la ndox ak suukar la boole naan wala boole tuur ay jib sa kan ak nga tëgg la treize. Bill ak Gine bu Yoff. ak Gine bu Yoff. jaajëf waay. bu neex. maa la ko wax. koo koy jib sot. kii mooy Tafa Kanji ah. agent wu Boy Niang wala sax waaw koo xam ne Kanji ak Boy Niang daal mu maanaam mu ngi noonu daal maa ngi lay bëggee. Babacar maa ngi lay delloo bëggee. am nga jàmm. maa ngi sant borom Daar Rahman bu baax ma ca pencum boppam ma. Tapha Tine Boy Niang daje nañu ñaari yoon amul soow ñetteelu yoon bi tey cosaan moom am tojantey bopp xaañante ba am na ñoo xam ne sa Grand Dakar liñ dëkk nee nañ dañuy porter plainte. avant tout maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Sénégal yëpp di baalu àq ñëpp ci weeru sell wi ñu jugee di baalu àq ñëpp di la ndokkeel yow tamit di ñaan yàlla na yàlla barkeel te gën la jubale ak soxna yi waaw sport soxlawul loolu làmb toolatul foofu sport dama mës a ñun dañu mës a prôné non violence parce que Boy Niang mooy ambassadeur pour la non te sport Babacar dafa bokk man dama bokk ci li ma gëm ne mooy day boole mais du tàqale donc làmb fu mu am violence amu fa place ñi ngi koy déplorer nag bu baax a baax a baax waaw ñoo est-ce que tey lu mel noonu su amee kii ñëw di jël xaasam di ko dugal si làmb moo xam promoteur la moo xam sponsor la est-ce que loolu du ko décourager. lool moo tax ma ne la ñu ngi koy déplorer parce que làmb dafa am benn dafa am fu mu toll actuellement te ñu xam ñu bëri ñu nekk fii te bëgguñu làmb. donc nag ñun ci suñu bopp nga xamante ni ñun ñooy ay acteur principal lu làmb ñun ñoo war a jël suñu courage à deux mais lépp lu ci bokkul Babacar ñu jël ko seppi ko ne leen parce que wax naa la ko waxaat la ko violence bokkul ci sport. non bokkul ci sport. violence bi fan la jóge waaw violence bi nag wax dëgg yàlla am euh, bon parce que comme man dama xawoon sori tuuti maa ngi woon ci côté mbër bi man dama jékki-jékki rek gis xeer yi di balancer wu ci ci kaw ngelaw li noonu yàlla xam na ko. yàlla xam sa mbër teel naa ñëw wala moo ko moo ko tafaatin ku fi waaye il paraît que su ma juumul yaakaar naa tafaa moo ñu fi njëkk mais bëriwul tafaa moo ñu fi njëkk parce que booy ñaa bi mu yegsee laa dégg ñu ne tafaa mi ngi noonu ci côté mais comme li ma lay wax rek ñoo bokk ndey ak baay xam nga booy ñaa tafaatin dañ doon daje daaru rahman non daje nañ daaru rahman avant lamb yi laa lay wax doon daje di nekk ci benn tool suñu toolu Serigne Serigne Cheikh tafaatin man mii di wax ak yow bi sama papa gaañoo dafa ñëw ba suñu kër toog ànd ak papaam ñu jaale si ñu booba ñu ngi dox combat am ak Balla Gaye xam nga foofu lu lu ñaaw xaju fa loolu moo tax quoi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay làmb la benn tàkkusaan la benn 30 minutes la ragal féete nag day xañ a wërsëg booy nag numéro 2 laa faral su ma sañoon bu arbitre sifflé day dóor tafaatir mu daanu mais waa waa su ma sañoon da koy dóor mu daanu bu arbitre sifflé mais lépp nañ ko def ci fair play. est-ce que mën na ko dóor mu daanu. làmb lépp ngi ci Babacar. damay laajte de. waaw xa <laughs> loolu ñaan yàlla de. ndax mën naa ne xalaat ngeen ne mën na mais loo ci mën di dégg Babacar mooy combat bi waaj nañ ko de. waaj ngeen ko daal bilaay taalaay. ci yan côté. ci côté yëpp. mystique. xam nga léegi-léegi da ngay dégg. li ligue euh, entraînement. waaw xam nga léegi-léegi nga dégg micro ñu ne la combat bi waaj nañ ko comme ni ñu daan waajee yeneen combat non ñun bii dañ ko waaj ñu raw ni ñu daan waajee yeneen combat yi parce que làmb ji dafa am benn envergure bu mu toll. mu xam ñun ñu xam personnellement làmb ji fan la ñu mën a yóbbu. waaw ah, xam nañ ko moo tax ci côté yooyu ngay wax yëpp parce que xam nga booy dem guerre da ngay préparer arme yëpp mais waaj nañ sur tous les plans Babacar waa Tafa bu ñëwee la 8 août dina am répondant de. billaay walaay dina daal bu yore bu bu bu petee palom yi dina gis ku ko tontu. wallaay dina am répondant lu leer laa lay wax bu arbitre sa yàbbee sifflet bi digganteem ak cappaacoli Tafa dina am répondant de waaw Tafa lu mu baax dinañ ko ñeer wallaay azim. ci côté xeex am na ñoo xam dañ leen tiital ci xeex bi. Tapha mooy choisir lu nu mu bëgg làmb ji demee mu demee ko nii su ko neexee ñu xeex ba pare door a bëri waaw su ko neexee. xeex bi arrangé. lépp ñu arrangé ci làmb ji lépp ñu arrangé ci làmb ji Babacar lépp daf ñu arrangé ci làmb ji. du dansé ak ñaari combat yi ngeen jël nii boo Tapha ak Balla Gaye boole ko. waa làmb nag Babacar war na dépassé foofu da ngaa fàtte période suñu papa yi ñoom Mbaye Guèye da nga daan dégg mbër bëre ceeg moroomam juróomi yoon da nga daan dégg kii day bëre àjjuma te làmb ji Babacar carrière mbër yàggul at yi xaaruñ leen fi am nañ plan de carrière Babacar bien sûr mais dañoo am famille bi mbër Babacar li boot ci ginnaawam dafa bëri te jamono neexatul donc soo gisee opportunité bi da koy jël ak sa ñaari loxo Babacar buñ amaatoon yeneen ñaari avance actuellement nii nii nii soo yoroon beneen avance ma ci ñe ko léegi billaay barki sëñ Touba. ñu ngi wax euh, Modou Lo maa ngi dégg waa Gaston production naan bëgg nañ Modou Lo bu nangoo ñu jox li ma la wax de Modou Lo laa wax dégg naa li nga wax. non dama ne léegi nii soo ko yoroon léegi laa wax. avance su Modou bu ñu leen ko niloon léegi ngeen jël ko. xarañ loo boo yoroon avance léegi du ma sax tàggu ay ñoom Père Dewel ak Père Bourkhane ak barke sëñ Bamba man maa ngay signé léegi door a dem ne leen jël naa ko. pare ngeen daal bu wàgga son production ñëw ne leen avance su Modou Lo ngeen ngeen encaissé ko. pour nga yegg fenn ci làmb ji il faut nga daan ñenn ñi nekk. da ngeen leen a a daan ñoom ñëpp. a bagage technique. <laughs> waaw ñu ngi jàng de. ñu jàng de. est di jàng. ñu ngi jàng de ñu ngi jàng de. Uh-huh. ñu ngi jàng de xam nga garab nag ci kaw lay fekkante te mbër mu mag moo gis tamit jàppal mbër mu ndaw ko fii jëlee ci jamonoy Abdourahmane Ndiaye Falang ba tey noonu la demee kontaan ci mais fii la fee yow soo bëggee dama la jox yow xam nga ñoo dëkk man ak ba pare tey bu tëjoon Dakar ñooy ànd ba nangal ma nga jaar dama continuer dem Daaru Rahman. yàlla na sa jàmm yàgg borom ak yaay borom ñaari galaw yi mais Lamine nag. waxal ak moom non léegi mu takk incha allah. ah léegi yàggatul.